Khadija Mayakor Diouf war a sikk ak moom waxtaan bu amam solo léegi léegi rek ñu dem waxtaan ak ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na madame Lemar ñu ngi lay nuyoo. c'est un plaisir merci beaucoup ci sa disponibilité. maa ngi lay ziar bu baax Aïcha c'est aussi un plaisir pour moi de vous accueillir chez moi donc euh, en l'honneur des femmes. donc euh, je crois que je suis une femme moo tax ñu invité ma mais man dama jàpp ni euh, tous tous les jours de l'année c'est c'est c'est dédié aux femmes mais nag dafa rafet euh, mu am bés boo xam ne dañ koy jël mu mandargal jigéen donc c'est un honneur et un très grand plaisir pour moi de de faire cette émission avec vous ci partagé merci beaucoup comme ni mu ko waxee ñu ngi ko fekk si fii ci këram vraiment ñu accueillir ñu ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp waa kër gi alors madame le maire euh, naka nga dundee bi ñu la élire euh, tab la nga nekk maire Golf Sud alors je l'ai vécu euh, avec beaucoup d'humilité je l'ai vécu en fait en mesurant responsabilité bi nga xam ni moom la doon ñu jiital la mhm. mais je l'ai vécu aussi en me disant que sas la dama ko jàppee sas ndax dañu dénk dénk loo xam ni nekkoo woon yow kese yaa ko doon uti li may wax toujours on était huit candidats donc il y avait sept hommes man maa ci nekkoon jigéen donc yàlla dogal ci mbaaxam donc euh, ñu retenir ma comme maire de la commune de Golf Sud may euh, succéder aussi à une autre dame donc kon Golf Sud nekk na commune boo xam ne jigéen a fa nekkoon te jigéen moo ko uutu kon jàpp naa ni loolu aussi euh, c'est quelque chose d'assez symbolique ma dund ko aussi ak vraiment fierté bi nga xam ne euh, moom moom ma habité woon en me disant que euh, c'est vraiment loo xam ne daf ma ko war a def pour jaamu ci yàlla ndax euh, buñ la dénkee lu day ni commune dénk la loo xam ne c'est cent vingt mille habitants li ñuy wax si jiite responsabilité la sas la te li ñuy wax xeer sax bu ko kenn faxastalee am naa ci responsabilité ma delluwaat aussi ci diine wax li nga xam ne moom lay sas moom mooy euh, euh, dénkaane mais moom mooy responsabilité kiy njiite donc boobu aussi dama ko dund ak euh, vraiment yaakaar ni ah, am na lu ma yàlla dénk loo xam ni war naa ko ci mën a jaamu donc loolu yëpp dafay doon ay sentiments yu bari mm-hmm. yoo xam ne dafay lay en même temps et au même moment nekk lu loo xam ne dafay dafay dafay diis si gis-gis mais ma oyofal ko trop ndax dama jàpp ni yàlla mi nga xam ni moo ñu ko dénk moo ñu jox teeñ bi ma am aussi yaakaar ni lépp lu la yàlla dénk nga def ci fulla def ci fayda mm-hmm. xam ni xalaat ni am na loo ci mën a indi yàlla dana la ko yombalal kon loolu yëpp dafay doon ay sentiment yu bari yoo xam ne biñ ma falee maire moo ma habité woon moo may continuer di habité moo may continuer aussi di gunge ndax saa su nekk war nañ taxaw seetlu xal xam ni ñi ko doon ut bari na. Mhm. yàlla yëkkati ñu ci jox ñu dénk ñu ci suñu ay nawle kon tamit euh, loolu tamit dafa nekk loo xam ne dafay doon euh, loo xam ne dañ ko war a def pour réussite ci li nga xam ne moom la ñu dénk. am na solo en tant que femme. Euh, ñu élire la ngay gérer li nga xamante ni moo ci Golf Sud mais qu'est-ce que ça vous fait réellement de gérer lu toll ni mairie <laughs> en, en tant fait, que femme. En fait, euh, là, là, là j'ai envie de rigoler parce que Yangi insiste ici en tant que femme. Oui. Euh, parce que quand vous le faites de cette manière, euh, damay am impression que ni euh, suñu jëlee jigéen. dénk ko rek dafa doon loo xam ne dafa exceptionnel. man je ne prends pas le poste en ma qualité de femme. Mhm. Ça c'est loo xam ne dama koy préciser. parce que je ne me définis pas seulement parce que je suis une femme. Mmh. Je me définis comme un profil. boo xam ne mën na doon góor mën na doon jigéen parce que on a fait le même parcours que les hommes maanaam ci góor ñi école yi ñu jàngee la ñu jàngee. des fois sax ñoo leen di dàq. des fois ah. ñoo leen di leen di raw. <laughs> on a eu les mêmes les mêmes réalités on a fait les mêmes devoirs ba yàlla dogal aussi si suñu liggéeyu bopp yi nga xam ne yore nañ ko on a des responsabilités autant que les hommes. Mm. kon en tant que mère moi je pense que c'est pas la qualité de la femme qui doit def être exceptionnelle. xam nga euh, man dama jàpp ni. Euh, malheureusement en Afrique et surtout ici au Sénégal mhm. tàmmuñu di dénk ay jigéen ay responsabilité comme lu day ni mairie mais soo xoolee jigéen ñi ko yàlla bindee ak la yàlla cëral euh, mu doon loo xam ne lu màgg la euh, xoolal ma kër tey boo feebaree ku lay faj sa yaay ñu jël santé jox ko maire soo nee dëkkuwaay yi kan moo ko yore yaay ñu jël dëkkuwaay yi ak li ko war a ñoŋal jox ko maire soo ne kër kan mooy gérer les finances ñu ne ah sa yaay de moom moo koy gérer kan mooy organiser la vie dans la commune wala dans la dans la maison ñu ne sa yaay te boo xoolee commune lan la c'est une succession de maison et de foyers et de concessions kon tey dénk jigéen mairie man pour man c'est tout à fait naturel ndax si suñu ay prédisposition naturel yàlla daf ñu baaxee ah ñu mën organiser ñu mën di saytu ah, njaboot te être maire mooy saytu ñi nga xam ne hmm. yàlla dénk na la leen euh, ci ci ci mbaaxam mais aussi euh, fexe ba nga xam ne yooyu ma fi tudd tey mooy njàng bi mooy éducation mooy cadre de vie mooy nan ngay organiser communauté bi nan ngay jàppale gunge ba nga xam ne képp ku nga xam ne rek foofu la yeewoo mu am hmm. dund bu gën a ñoŋ ci suñu caractéristique propre la nekk en tant que femme kon man dama jàpp ni euh, sas bii nga xam ne sas nañ ma ko ndénkaane bi nga xam ne dénkaane nañ ma ko en tant que femme dañu fekk si juste si li nga xam ne ay prédisposition naturelle la yu ñu am mais au-delà de ça euh, dama jàpp ni euh, maire bi nga xam ne tey en tant que femme doon naa ko dafa war a mën a tax ñu am beneen gis-gis bu bees si développement boo xam ne en général du approche masculine maanaam mhm. góor en général euh, ci gis-gisam dafay formel dafay carré. te ñun jigéen am na yàlla euh, benn euh, sentiment boo xam ne euh, habité nañu en tant que femme loolu je crois que c'est physiologique c'est normal c'est naturel boo xam ne gis-gis bi du doon benn donc en tant que mère aussi mère mm. maman yaay donc en tant que mère mère comme l'institution dama jàpp ni rek le hasard n'existe pas. Mm-hmm. la mère d'abord avant ngay nekk madame mm. le maire. Mm. donc ce sont des signes yoo xam ne pour man dafa am lien. indescriptible boo xam ne am na ko. Mhm. donc euh, jàpp naa ni en tant que femme mère euh, lii nga xam ne tey à cette époque précise de l'histoire du Sénégal dénk nañ ñu ko. caractéristiques yi nga xam ne gis nañ ko mooy y a moins de vingt vingt cinq femmes mères sur cinq cent et quelques néew na torop néew na ba tey kon exception la certes dans cette euh, configuration mais man dama jàpp ni lu war a normal la war a doon te là où nous les femmes nous devons aujourd'hui nous battre c'est fexe ba nga xam ne ci suñu ay euh, parti yi ñuy nekk mais aussi si euh, euh, gox yi ñuy nekk mm-hmm. dañuy jéem a xool nan lañu mën a def pour indi suñu contribution suñu participation par rapport ak li nga xam ne moo fa nekk muy mairie muy muy lépp li nga xam ne organisation communautaire de base la déjà ñu ngi ci mais aussi nan lañ mën a def ba nga xam ne dans les postes de décision mm-hmm. suñu nekkee ci benn entité suñu yëkkatee na kan moo bëgg ñu am courage yëkkati ni ñun bëgg nañu parce que loolu moo ñuy gàllankoor mm-hmm. soo xoolee par rapport aux candidatures des femmes souvent euh, le nombre de femmes qui candidatent est très faible par rapport au nombre d'hommes qui candidatent donc loolu dafay tax xëy na au final suñu demee à la fin il peu de femmes qui arrivent à des postes de responsabilité donc être mère euh, et être femme pour man c'est une chance parce que dañu am euh, regard boo xam ne c'est c'est le regard de la maman c'est le regard euh, bu nga xam ne ñun dañ ko am naturellement ci société bi mais aussi euh, man dama jàpp ni euh, c'est un sacerdoce pour moi parce que jàpp naa ni l'engagement que j'ai toujours eu dans ma vie mhm. en tant que femme engagée dans les causes auxquelles je crois am engagement associatif très poussé mais aussi gëm ni ma vie warul réduire dem liggéeyi wàcc mais dama aussi war a mën a participer ak li nga xam ne mooy doxal communauté bi donc être mère tey dafa nekk juste une continuité logique par rapport ak li nga xam ne moom laa mës def dans ma vie muy un engagement euh, très tôt mais aussi euh, gëm-gëm bu nga xam ne jàpp naa ne en tant que citoyen à part entière ku ci nekk war ngaa mën a jël ses responsabilités ci li nga xam ne mais commencé ko ci sa koñ commencé ko ci mbooloo bi nga nekk mais aussi sa gox kon continuité la par rapport à, à, à mon parcours donc euh, et je me dis toujours que je ne suis pas arrivée mère par hasard euh, je crois que j'ai été préparée parce que boo amee très tôt à l'âge de quinze seize nga am engagement associatif partout où tu es passé oui. donc, c'est un autre niveau de responsabilité mais aussi euh, c'est le résultat d'un long travail c'est le résultat d'un processus. Oui. mais un processus bu nga xam ne jàpp naa ni ah, am na ñoo xam ne euh, parfois euh, duñ ko xam parce que c'est pas des choses qu'on dévoile mais lorsque très tôt dans les associations yi nga nekk da nga doon jël ay responsabilités lorsque à 12 ans vous étiez membre des clubs éducation à la vie familiale ci sa école primaire jóge fa dem sa lycée euh, di di di di bokk ci association di diriger des associations dans ton propre quartier nga initier dem ba ci sa gox bi nga nekk ñu monté fa l'une des plus grandes associations de développement des femmes la femme africaine nga bokk ci ci conseil d'administration bi très jeune dans ton parcours universitaire aussi ville boo mës a nekk da nga mës a xool fan la étudiants yi daje ak yan question la ñuy aborder yoo xam ne c'est relatif à votre vie étudiantine étudiantine nga bokk ci kon quand je suis arrivée en politique peut-être que beneen monde la mais c'est une continuité de notre vie sociale bi nga xam ne am donc c'est tout naturel que je suis arrivée euh, dans la politique peut-être parce que li li nga xam ne man pour man dafa am solo mooy quand vous êtes dans le monde associatif da ngay am ay limites limites yi mooy c'est les politiques qui dirigent donc objectif bi lan la est-ce que da ngay bàyyi tout le temps ngay buter sur des choses yoo xam ne ah, mënoo cee am décision wala est-ce que da ngay jël sa responsabilité nga bokk ci ñi nga xam ne ñooy décider donc moi c'est vraiment ce ce ce pas là que j'ai fait et aujourd'hui je suis maire de la commune de Golf Sud j'ai envie de vous demander est-ce que vous êtes mariée avez-vous des enfants déjà je suis mariée vous avez des enfants et j'ai des enfants Alors... et je suis épouse euh, d'un grand monsieur que j'aime citer <laughs> Mahécor Diouf ñoo ko bàyyi léegi tàggu ko léegi comme yaay Diouf ñoo ko bàyyi tàggal ma ko sàmm yàgg borom gaañi bax yaay loolu laa koy woowee dafay wax toujours euh, c'est c'est mon complément c'est vraiment un, un grand monsieur comme je dis toujours mais c'est c'est c'est vraiment quelqu'un bu nga xam ne euh, beaucoup de choses yu may réussir dans ma vie c'est parce que c'est lui qui qui m'accompagne alors est-ce évident avec vos nouvelles responsabilités de pouvoir gérer jufañu ko bàyyi comme ni nga waxee. non en fait c'est vrai les enfants lorsque les responsabilités augmentent. Mhm. li ñuy wax rek jot bi dafay wàññeeku. Mhm. mais li ma gëm mooy ñaari nit suñu nekkee ensemble dañu dañuy comprendre ante mhm. pourquoi c'est important parce que xëy na di nga am lu bari loo xam ne euh, sa responsabilité nouvelle yi nga am dina ko jël ci temps mais nag nous sommes d'abord des femmes et des femmes sénégalaises man je suis très fière de dire que je suis une femme sénégalaise. jusqu'au bout des ongles parce que jàpp naa ne sama jëkkër sama kilifa la sama wasila la sama sëriñ la sama xarit la euh, sama papa la euh, sama sama complément la parce que y a beaucoup de rôle yu nga xam ni euh, jigéen da koy jouer ci rôle góor mais góor jigéen da koy jouer ci rôle góor mais vice versa mm-hmm. donc du ñàkk par moment di nga am lu bëri loo xam ne doo matale parce que dafa am lu bees lu ñëw lu xam ne charge de travail bu bëri la mais soo amee toujours nit bu la comprendre mais yow aussi nga am xel dafa am solo tu ne peux pas jël sa vie yëpp ne dama koy consacrer uniquement à la politique wala à mon travail il faut savoir faire la part des choses lu ci nekk la moom moom nga jox ko avoir du temps pour aussi pour tes enfants parce que ñoom aussi sa réussite dans ta vie c'est la réussite que tu peux faire avec tes enfants. dañu soxla amour maternel dañu soxla présence dañu soxla euh, di partager yenn moment yi ak yow donc de la même manière da nga am ay goro danga am ay ay ay xarit ay wëllër ay am di jàmm tu as tu as tu une vie normale comme tout le monde euh, lii def différence bi mooy xëy na euh, yow da nga nekk personnalité publique euh, malgré toi euh, et que dafay am yenn yoo xam ne peut-être euh, di nga ko bëgg parfois da nga koy uute hmm. mais li am solo rek mooy yëg-yëg li am solo mooy boo la yàlla joxee borom kër da nga ciy jaamu yàlla mais surtout dama koy wax surtout les jeunes filles qui se sont pas encore mariées hmm. booy tànn jëkkër tànnal jëkkër bi la comprendre jëkkër bi nga xam ne ah, vous pouvez partager <laughs> des moments faciles mais aussi des moments difficiles et je je j'en profite vraiment pour dire que euh, vraiment maa ngi sant di gërëm sama borom kër mais aussi mo parents parce que xam nga soo politique te amoo tamit ku la jàppale ci sa njaboot euh, ku la euh, xoolal njaboot gi soo fi nekkul dafay dis trop ci yow donc être femme politique daal c'est plusieurs sauces yoo xam ne da koy mm. boole. Mm. pour mën a arriver à ce que tu fais. Euh, di nga am yoo xam ne di nga ko réussir di nga am ay regret par moment sur certains événements mm. yoo xam ne di nga ko bëgg a teewee mais nga nga nga mën ko bañ a teewee ndax responsabilité bi mais defe naa loolu yëpp lenn rek moo ci am solo. nekk ak ay nit yu la comprendre mën la dimbali aussi mën la ci ba nga mën ci àgg fan ci alors yaa ngi wax léegi femme politique on a vu de plus en plus euh, les femmes dañuy engagé wu ci li nga xamante ni moo di la politique naka nga ko gis mais dama ko pense que c'est une très bonne nouvelle pour la société sénégalaise oui. parce que euh, j'ai vu que beaucoup de femmes avant dañu doon euh, wax ni dañu seexlu politique moo tax duñ ci dugg mhm. am ci ñu bari tamit da euh, dañu doon wax que ni ñoom dañu ragal am ci ñu bëri aussi dañu doon wax ni seen responsabilité professionnelle permettre leen ko mhm. mais ñu ngi gis ni de plus en plus les femmes commencent aujourd'hui à prendre leurs responsabilités et maa ngi ñaan yàlla mhm. gis nga élection euh, locale yi ñu jëm en 2027 c'est maintenant qu'il faut commencer à penser à ça et que dans par exemple quatre cinq ans bu ñuy demaat ci renouvellement des des institutions communales ñu am un nombre de femmes assez suffisant parce que loolu aussi dafay permettre ñu indi une nouveauté dans la scène politique sénégalaise. changer un peu changer un oui. peu renouveler la classe politique mais avec aussi des des des profils différents leneen li nga xam ne tamit euh, dama ko gis mooy jigéen ñi souvent dans tous les postes de responsabilité moo xam ci entreprise yi la ak leneen ak leneen dañuy am ay postes de responsabilité mais bu ñu yegsee si politique bi même su fekkee dañuy politique dañuy nangu nekk ci ginnaaw elle elle elle préfère jouer les seconds un autre c'est une autre bataille du euh, xëccoo encore une fois et moi ça ça il faut être audacieux pour man il euh, faut avoir de l'audace pour pouvoir s'imposer en fait il faut avoir du courage mais il faut se dire aussi que euh, li ñu góor ñi mën ñu nekk ñu en compétition ak ñoom mën nañu ko mhm. kon nag bis bu nga xam ne pour man à compétence égale il faut faire la promotion des femmes parce que loolu aussi dafay permettre à la société mu mën a indi lu bees leneen li nga xam ni tamit am na solo jigéen ñi dañuy xaar ñu proposer leen duñu bëgg dañuy bëgg mais dañuy toog ne xëy na am na sama càmmiñ boo xam ne moo ma gën a placé donc il faut avoir confiance en soi il faut que nit ki gëm boppam mais il faut que ñu xam ne l'histoire du Sénégal doit s'écrire avec les hommes et, et les, les femmes, femmes elle doit s'écrire avec les jeunes et les moins jeunes toutes les composantes de la société sénégalaise kon man en tant que femme si j'ai un conseil à lancer à toutes les politique mm-hmm. mooy du yomb Euh, politique métti na euh, mais comme tout dans la vie mais Rien il faut facile, te dire que on peut le faire on doit le faire et que ce siècle est un siècle de femmes ça j'en suis fermement convaincue ah oui ah oui alors en ce jour c'est spécial 8 mars euh, boo amoon benn vœu booy def wala benn message bu bëgg a lancer la lay doon alors moi j'ai j'ai quelque chose que je vais dire qui va surprendre tout le monde ah ouais? parce que j'ai il y a deux jours je discutais avec sama benn xarit mu ni ma Khadija si tu devais choisir les femmes du mois ñan ngay jël ma ni ko moi Khadija si je devais choisir les femmes du mois j'allais dédier ce mois de mars à nos belles sœurs suñu ay jabaru frère <laughs> on ne parle pas assez de ces femmes là oui. ce sont des femmes courageuses euh, suñu ay frère di leen jële ci seen ay kër comme ñun ni ñu demee sëyi feneen indi leen ci suñu kër yi yendal suñu yaay yi di sonn ci suñu famille yi di sonn si ñun ñi nga xam ne comme on dit ñun ñooy njëkke yi ñun ñu nekk ay buur ñoo ñuy teral bu ñu wasinee mu metti loolu ñoom ñooy def teranga wëlbatiku jëmale ko si ñun kon est-ce que tey la société bi nga xam ne mu ngi avancé di dem vers une modernité mhm. ñu sargal suñu ay belle-sœur suñu ay ah, jabaru frère man na kon su ma amee message bu may lancé mooy loxol kajoor day weesaloo et que en tant que jigéen dañuy aspirer à un nouveau Sénégal kon ñun ñi nga xam ne yàlla baaxe nañu ñu am ay belles yu baax nañu xam ni ça doit aller dans les deux sens oui. on doit les honorer dañ leen war a teral dañ leen war a sargal dañ leen war a jox seen cër jox leen seen yéeguwaay ak seen wàccuwaay ndax ku ci nekk rek boo ko jàppee ni sa bopp jàpp ni kii kat jigéen la mais jàmbaar la nga jàpp ni euh, mënoon naa demee neneen mais demeewu ko jàpp ni dafa bàyyi léppam ñëw si sa kër yaay mhm. di muñal frère kon nag je dédie ce mois de mars à toutes les belles sœurs qui sont dans nos familles et qui parfois souffrent beaucoup mais qu'on n'honore pas assez Absolument. Ah, donc si j'ai un message à lancer c'est que la société sénégalaise doit évoluer et que nos relations aussi doivent changer dans les deux sens oui. de cours peut-être tout le monde. Ah. mais nos belles-sœurs. c'est important pour moi. <laughs> dëgg la merci beaucoup madame le maire. <laughs> merci à vous a été un plaisir. plaisir ah, partagé ah, ce chef protocole ak le chargé de cours. merci à vous merci beaucoup de votre <laughs> disponibilité. merci voilà. jigéenu